masquerade ci suuf ak masquerade ci kaw li commencé woon ci abajada ba ci ibijili ba fi muy yem ci riishi ñu war a jàll ci maskalonk maskalonk nag bu ñu ko waxee mooy li ngay gis nii nga xam ni bu fekkee li ñu doon njëkk a jàng masquerade la woon bu njëkk bi dafa ñëw di nekk ci kaw bu mujj bi mu ñëw di nekk ci suuf nga xam ni bu masaana ñëw nekk ci kaw ñu koy jàngee ah bu masaana ñëw nekk ci suuf ñu koy jàngee i waaye yoon bii nag moom masque bi day changé maanaam masque lonk lay doon incha allah waaw ci jamono yi ne nag buy bu masque bi di changé rek ni ñuy jàngee xaraf bi day changé bi maanaa bu nekkee ci kaw ala ñu koy jàngee bu nekkee ci suuf jàngee ko i buñ commencé lonk ñu koy jàngee u kon li am solo ba am solo mooy yow miy jàng ngay xàmmee masque yi bu baax a baax incha allah kon tey dañu war a jàll ci masque lonk léegi da ngay wax u bu ju du hu wu zu u bu ju du hu wu zu u bu ju du hu wu zu u bu ju du hu wu dụ u bu du đủ hữu vũ dụ